am nga problème. <laughs> mais Yves. boo gisee mbër yi ñeme mbëru Cees yi. Mhm. ñàkk a jàppale la. ndax mhm. mbëru Cees yi. waaw leen ñeme rek. ñàkk jàppale tax nga leen. dëgg mhm. <laughs> ndax bu leen leeroon ne. tey jii Modou Anta amaat na combat Modou am na presse. waaw amaat na combat te presse moom bu yow mu waaj. ndax mer gi Modou Anta mer. presse la ko denc te Cees te Cees dañoo namm victoire. ku ne xam na ni sorte yi amoon waa Thiès amoon Cheikh Niang moo am benn victoire yóbbu ko Thiès mais ñi si des ñëpp mhm. maanaam ay ay ay kii lañu indil waa Thiès ay défaite Mariam Naar rek war na tax ñëpp ah, topp prince loolu seen coobare Mariam Naar loolu seen coobare ñàkk a jàppale gi ñàkk dama bëgg autorité yi nekk Thiès waaw ñu jàppale mbër yi te ni ñu mën a jàppale yeneen mbëri dëkkul Thiès man ñooy jàppale mbëru Dakar yi ñooy jàppale mbëru Fuuta yi ñooy jàppale mbëri ñëpp ba yi mhm. jàppalu ñu mbër jàppalu ñu artiste ay mhm. mhm. jàppale ay mbër ak ay artiste te loolu dafa ñaaw dafa ku mel ni Modou Anta champion bu day ni moom xoola départ bi amoon wallaay dëgg ak fi mu mujj te xale bu ndaw la du ma te te te ah! Modou Anta daam bari bu ko gisee dañ ne Modou Anta bii mënul daan presse dina daan presque mu ànd tellement que dafa jeex léegi. lan la lan la mais mais looy def. moo jeex dafa tawat wala waaw mu ànd ëppeetuma dara. mais dafa ah, ëppeetuma dara. mais mais nooy def ba doo jeex. mais nooy def ba doo jeex. yow yow entraînement yi ko war sa waay amoo ko. amoo ko la jàppale moo du ante heure war na fekk ñu bëri ñu doon laaj mu ànd ba xam dafa feebar. heure war na fekk mu ànd ñu koy jàppale muy voyager comme ay moromam. dëgg la waay heure bi waroon na fekk booy jaxaaw ñu koy jàppale muy voyager comme ay moromam. Mhm. heure bi waroon na fekk Cheikh Niang. ambulance mii di tukki fu ne bu dem ambulance ba mu demee la dem yoonam. ba mu demee la pare ci làmb nekk Thiès. nekk fa benn champion ma lu ma jaaxal. man Thiès waa moo complexé. dañuy ñëw Dakar. sol blouson ñëw Thiès di ñu rey ay costume ak cravate. Mhm. mais Massaly sa copain mu ngi jàppale waat. non sama yoon nekku ci kooku moom kooku moom daf ma yab kooku moom yabaate mën ta weesu moom mu fekk doomu Thiès drapeau ba ko ko téye muy jéem a gor loxo bi waaye xaar ba moo ñëw ci moom après bi na koy indiwaat de. moom moom laa bëgg dugal nii. waaw très bien dama bëgg dama bëgg autorité yi. Mhm. ñu jàppale ñoom Modou Anta ñii. ñu am nañ fa Modou Anta. surtout loolu. am nañ fa Matar mbay ba mu dem yoonam. Matar waay sàggane nañ ko. Mhm. dañoo mën a sàggane ay champion. Matar Mbaye ambulance Matar Mbaye ambulance. Ah, Matar Gueye ñu leen ko fi def. di ko xasak di ko ŋaññ ba mu mm. dem yoonam dem moo moodu ji. xam ma sax booy seet loolu sax dafa ëpp ëpp njariñ léegi booy xool. parce que da nekk ci Thiès di rey sa bopp. joueur yaa ngay jooy. Mhm. théâtre kat yaa ngay jooy. Mhm. artistes yaa ngay jooy. mbër yaa ngi jooy. ñëpp ngi jooy. te maanaam ñañu am. waroon leen mën a jàppale hmm. jàppale leen moo tax man xaaruma leen fa ma nit d'accord boo gisee waaw léegi sa diggante ak Masal la mooy problème bi non Masal moom dafa yebaate hmm. <laughs> ndax réew mënta wes nga baal ma ci kàddu gi hmm. na ma nit ñi baal ci kàddu gi lii mu def parce que Yves xam nga magum jëmm day ni ma sali def sa tooxi doona ah? ba yër amee yaa yër ba fat amee yaa fat ba def amee yaa def li nga def ba pare wëlbatiku yaa ngi dégg ñu dem naan di wut prétexte kat nee na. yow xale bu jigéen bi ñëw ne yow yaa jur doom ji. Mm-hmm. nga nangu bañ dem seen say mbokk dem tuddi. Mm-hmm. ba xale ba màgg. Mm-hmm. Yves lu tax avant ñoo tudd Massi Xali neewul man la. ah yëbaate mënut weesu loolu. léegi ñu ne dafa dem xaw ma polisu géej euh, fii Medina. nee na xaar bu jigéen dafa def police Médina. di mhm. porte plainte waa Yves man nan laay dëkkee Thiès. Mhm, ñu lay porte plainte Médina police Médina. mais lan ma fa indi sa tur ci wax ji. déglu xaar rek dinaa fa ñëw. Mhm. premier arrondissement nekk Thiès. deuxième arrondissement ca wàllu Kaar Sapeur ba. porte wuñu ma plainte foofu. di ma porte plainte police Médina. ma mel ni Baye Demba. Baye Demba dëkk Médina. waaw ah <laughs> benn ñaareel ba léegi nee na. police bu fa nekkoon muy El Capo. El Capo bu Thiès. nee moo ni ko. xale bu jóge bi daan na ñëw soirée Dame Sène léegi daan na ñëw soirée Dame Sène léegi moom mu bëgg a wëlbati ko wax. Mhm. ni léegi comme daan na ñëw soirée Dame Sène. Ah. wax ji lii de xale bu jigéen bi daan na ñëw soirée Dame Sène léegi daan na ñëw soirée Dame Sène ñaata jigéen ñoo na ñëw suma soirée. dëgg la kon kon soirée soirée ba kon euh, xale yi ëmb yi bëri nañ kon de ku ñëw soirée Dame Sène ëmb mais tamit waxal dëgg nañ wax di dëgg sa doom ñu teg leen yéen ñaar nii ngeen nduroo lool amul différence ngeen nduroo moom lool gis ngeen Yves bërki dem loo teg sama doom yi mhm. di <laughs> ma ma teg sama doom yi nii di xool fa da doomu masali bi ma xool ma duróowul sama doom bi dara ma ne waaye defal naa mais masali ba yëpp la ma yàpp ba tax mun mu indil ma kii bëgguma ko wekk léegi nag femme bi nga xam ni mhm. moom la amante doom moo dugg ci émission bi mhm. ne daam seen sékkuma ak moom dara. ok waaw xam nga kooku set na ma mais man maa bëgg set wecc. Mhm. moo waral nag ma ñëw ni ko léegi test ADN ba nga doon wax ne. Mhm. yow de ak gel bee ko waroon def. Mhm. gel bi bañ. léegi man mi ngay tudd ci live boobu. ñëw naan benn artiste lañ ko wax artiste boobu. nee na gel bi nee na artiste boobu bu tëggul du am lu mu ma jox moo tax mu ñëw jiiñ ma ko dégg nga wax ji. man kilifa laa léegi man kaña laa. masale moom kilifa la man kaña laa léegi. yaa ngi dégg. <laughs> mu ne man kilifa laa sama jabar ngi ni sama doomu ngi tey dootu ko dolli laal na laa laake te nee naa ko boo laa laa ku bëri da nga taxaw pour def test bi par force mu bañ te man léegi ma dem sa léegi ma dem sama yoon de parce que xaar naa ba sonn waaw léegi nag bu ñëwul fii ak fan laa ko may mhm. bu ñëwul damay dem sama yoon te bu ma xasee ba dem américain xamul ay xulloog ay ŋaayoo ay ay affaire yi sawi mhm. da nga fa ñu ñu mbéj la mbéj yoo xam ne di nga dellu fa nga dëkk <laughs> ñëw foofu nag naan nga kaaj koy defee fii laay bañ test ADN baa ngi nii. fi ñu koy defee nu mu tuddati fii. ci ci clinique bi. nee ko kañ jaar ci beneen bi def ko corniche bi waaw nga kii tey a grave que la ngay fay daa eh, ko fay. Ah, waaw man mën naa ko fay. des fois ñu ngi test ADN waaw. mën naa ko fay léegi moom nanguñ ko def eh, patron la moom nee kilifa la. Mhm. léegi mom na téye xaalis sama yëpp man ma fay yow nga def ko man ma fay ko man yow da nga bëgg moom mu ñëw nga def mu def ñu jël xale bi aussi bosam ak yaayu xale bi yóbbu waaw ne ñëpp ñëwee ñu dem <laughs> eh, xaaral rek déglu rek xam nga man du ma artiste yooyu ñu naan ay yaa def ñu wax duñ tontu man damay tontu eh. sama xarit bi ya woor xoola bo mo songé ci mbéd bi mu laaj xex damay xex amul mm. artiste amul dara sama yoon nekk ci loolu ya woor légui moo ma dem duggal naan ay daam seen la di tuddu sama tour dootu ko dolli ñaata artiste ñoo nekk Thiès. Sanekh nekk fa bu mënoon nañu artiste rek. Serigne nit ñi di ŋaañee ŋaañee naan wala ñu ne artiste Thiès sax. waaw ñu ne est-ce que nga mm-hmm. ni daam seen. Mm-hmm. ba ñëpp léegi léegi damay gën si naan ma ne xoolal lii xoolal bii ak. d'accord ñoo xam ne bu ëllëgee. Issa mayaale image yu sabaru daam seen bi concert bi. am na ñoo xam ne. Euh, Pape euh, papa papa danseur Titi. mu ngi lay seetaan mais waroon dabalaa bi. maa ngi koy nuyu nee na am na lëmbalu góor ak lëmbalu jigéen. dëgg la na am lëmbalu bu góor. góor day jigéen maanaam lëmbalu góor sax mënu ma koo dégg. góor paap <laughs> lëmbalu góor mënu ma koo hmm. di nga ne góor. Hmm. waaye lëmbalu góor moom mënu ma ko dégg. lëmbal moom lëmbal la. am na ku message am na message aussi pour Elton <laughs> eh, nee na ma <laughs> ce que buñ la fayoon di nga bëreek Karim bu écurie Balla Gaye kuy Karim. xaw ma Karim eh, man suñu waa écurie laa xam école de Leen foofu laa mën a wax. xamoo Karim dama yàgg laa daan aw ma sax kii ah, am naa adversaire ah, ah. maag Cheikh ñag ñoo war a bu mhm. Thiès. maa ngi ciy woo ñëpp foofu laa mën a yem. Mhm. di ci woo ñëpp pour ñu jàppale ma. waaw voilà. allah am na solo. ah dinaa la ci wool nag samay nit yu baax. voilà. ajaratu Ndeye Sophie Tall. Ndeye Sophie oh, Tall yaay from Alpha Voyage. from Alpha Voyage. maa ngi lay woo nga jàppaleel ma xam nga man moom man yow laa yab. ndeysaan yow Matar Diop suba teel laa gën a yab Sénégal. Cheikh Kanté jàppale ndax ku ñu ma jàppale ma rek. man la dama ci ajar doy su fi taawal balaa suba teel. sunu yaay jooju. waaw a baax. Cheikh Kanté jàppale Cheikh Niang. waaw bëgg nga seere ko sécurité man dama ne. ku la bëgg ma bëgg ko. ragal féete day xañ a wërsëg. sama yaay la de. ci yow laa féete. sama yaay la de. kooku bis ni tey def naa ko yaay. barki seen Touba ndax sa jëmm ji. sama yaay la de. ndax nit du maye bopp rocc lan. déedéet te yow laa jox sama lépp. Mhm. ku la bëgg ma bëgg ko. Mhm. ku la bëgg man de ay nit ay nit yi ngay def coppite sàmmay naa di leen coppite rek. <laughs> maa maa ngi woo Cheikh Kanté pour mu jàppale Cheikh Niang. oh eh. maa ngi woo ak Kéba Kanté. sama yaay Ami Diawara pour mu woo. Habib nekkee sa yaay noonu la nekkee sama yaay na ñëw jàppale ma. waaw na ñëw jàppale ma li laa war a. Pape Doumbouya Pape lay woo.